AFT TV moo leen di may xikmatul yawmi xikmatul yawmi ak Serigne Saliou Sy AFT TV muqaadalil amaanu alhamdulillahi wasalla abada ala allati bihi lana aluda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani wahlulan minhu al uqad wa shalhu dakiran wa shakiran abada